nous avons déposé une plainte citoyenne contre la mairie à l'OFNAC pour lotissement irrégulier et violation flagrante de l'article 4 du Code de l'urbanisme qui stipule que tout acte émanant de lotissement irrégulier est nul et d'une nullité absolue dont la vente est non opposable au tiers. Une spéculation foncière qui sévit depuis l'avènement de cette équipe municipale qui a passé tout son temps qu'a exploité et éprouvé sa population. Nous interpellons l'opinion nationale et internationale et nous demandons en premier lieu un audit complet du foncier de la ville. waaw am lu ñu metti rek yàgg dund ci lu metti ñuy rappeler président na gëstu waa Diamniadio bu baax parce que ñaari Diamniadio amu fi benn Diamniadio moo fi am na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax benn Diamniadio bële ay borom doole ñoo fa dëkk mais benn jam ñaajo bi ay néew doole ñoo fa dëkk ñoo xam ne ci torox lañ nekk guddi ak bëccëg te kenn teguñu ko ku dul maire bu nekk fii maire mair bi moo ñu ko teg parce que fi ñu taxaw ni tey di wax ci quartier sant yàlla bi maire moo ko lu sa jox population bi maire moo ñu ko jox ba pare dañuy xeex guddi ak bëccëg def nañ fi ay tableau quartier sant yàlla mu dindi ko mais nañ ñu fi ay euh, ay latérite pour si mbedd yi bu tawee ñu mën fi jàll mu dindi ko te mu ngi continuer def ay lotissement yoo xam ne baaxul te ñu ngi ñaan nag président mu jàpp ci bu baax baax a baax a baax xam ne ñu nag mairie bi fu jëm coow lay jur ëllëg waaw bu fi nit deewee nag na jël ay responsabilité bu baax xam na ne carrément ñu ngi xeex depuis 2018 ba tey di bëgg lu leer parce que ay sénégalais lañ ay sénégalais lañ dafa war a leer ñun nag dañuy wax mu leer ñu mairie bi tey ragaluñ ko suba ñu ngi fii défendre suñu cause dañuy tabax suñuy kër en tant que ay citoyen sénégalais amuñu luñu suñu kër duñu bàyyi nag kenn dañu ko yàqal te ñun ñëwuñu rek tabax mairie mooy ñu jox ay kayit pour ñu tabax fii te boobu ba tey ñu ngi sonn trop wax nañu waxaat wax waxaat léegi nag xam la moo des ku fi ñëw pour toj suñuy kër dañuy rayante nañu jël nag seen responsabilité ci loolu di koy wax président baax di ko wax procureur bi na jël ay responsabilité bu baax parce que ay sénégalais lañu descorche neen dafay ñëw ñuy wax saa buri lu leer ni midi bii mooy quatrième fois muy dugg jam ñaa ji toj ay kër bu fi ñëwee di toj ay kër nag lu mu ci bañul bañuñu ko ci luñ non bëggatuñ gis ñu toj ay kër mais kër yi mu toj na dem gis maire maire moo liste jox ko population bi Saaburi ba amee lu muy wax na ko wax ak monsieur le maire moo kenn fekk terrain jàmbur nga ñëw tabax ko dañuy jox ay këyit mais toj dafa war a jeex ñu wut ay solution xool na ñuy def bu dee terrain jàmbur la ñu xool waxtaan ak borom wala yooyu ñu bàyyi toj parce que ni ñuy def ba am dépense jafe na waxuma la nag tabax kër.